Cinevision.com. La crédibilité, notre credo. Cinevision.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. nekk luy jëmal ndorteel naafile yu am solo yi nga xam ne mi ngi am ci juma ji ya. mu di néegub suñu borom bi nga xam ne Serigne Makhtar jenn moo ko tabax ci Touba Daarul Manaan te jubluwaayu jëmmal bërëb bii nekkul lenn lu yombalal julit ñi ngir ñu mën am bërëb bu ñuy jaamoo suñu borom subhanahu wa taala guddi gi njëkk ci sëru Ramadan al Mubarak dal dina ñuy door naafile yi ya. commencé ko ci baqara dal di fas yéene wutali naas yi للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون mu nekk naafi la goo xam ne fu nekk la nit di joge ngir teewesi ko rawatina ñi dëkkee ci gog boobi de walaqad alimtum alladhina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiratatan qasihin fajalnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin jile naafi la bu weso ubita liya tout tank yi nga xam ne ñi ngi ci daara sëriñ maxtar jenn ji ya, nga xam lu ëpp ñaari téeméer ci ay ndonga ña nga fa di wattu téere borom bi subhanahu wa ta'ala ay xaafisul quraan di leen jàngal li koy firndeel naafila gi ñoo koy amal walillahi almashriqu walmaghribu fa aynama tuwallu fa samma wajhu llah إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك بصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ginnaaw naafile gi bi mu daal di noppee moom Serigne Makhtar Diène ay kàdduy soññee jot naa jippa jóge ci moom jëm ci mboole mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne te woon nañu fa muy kàdduy soññee yu am solo lool. ndax am nañu fi teewoon daaw te yàlla dogalul ñu fekki ko kon defaluñ suñu borom lu tax mu bàyyi ñu fi ba ren ginnaaw bàyyi nañu fi nag ba ñu fekkee waat ko nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te di ko def ci ak sellal bu baax. te rek woor nag du ñàkka lekk ak ñàkk a naan waaye lépp loo xam ne dafa aju ci say cër ba baaxoo nga ko daan déglu te muy lu xaraam nga ba ko lépp loo xam ne danga ko daan xool te gënul it nga wàcc ko fépp foo xam ne sa tànk bi dafa daan dem te gënul nga gàttal ko bu baax te xam ni koor moom gàtt na lool waaye nag ku yàlla baaxee ba nga fekkee ko war nga cee gën a góorlu bu baax a baax boobu soppees na ci koor bu baax ñuy dimbalante ta yalla tax te dimbali nak kenn ku ne ka nga tane rek nga dimbali ko kenn ku ne am na ko tane ko rek ci adina di gis ni ki ya ko tane nga dimbali ko ta yalla tax ilil amwat rabbun ila dunia ma al xayaat walaw soyaatan faqat ya'mal salihatan tanfa'u in khafalu sëñ tubaa ne demon ña demoon bu ñu leen fëggoon ni leen lu ngeen gëna bëgg duñ fa nek di wax dara lu may wat aduna daw jëm a jëf donte sax benn sax wala waxtu lañ fay def ñu jëf lu baax loo xam ne dana tax buñ jël sooy fii mu jariñ comme nag demaguñ ñun góorgóorlu lu baax te ku ne la ngay def nga di ko def ngir yàlla te xam ni loo deful ci àdduna wala jiitaloo ko boo demee doo ko fekk nañ góorgóorlu ci lu baax si jamono toll ku ne xam na ni mucc yomb lool waaye ku am sa taalibe wala nga am dara ci ak lislaam na nga fexe ba nga dugal ko ci sa bañ ba ñuy wax ru mooy bañ ba mucc ca bañ yi nga denc ko ca góorgóorlu bu baax a baax léegi liy fëkkee bari na lool góor góorgóorlu te xam ni àdduna mii kenn du fi sax andi wuñu fi ngir ñu dund ba faaw dañu fee indi rek ngir ñu jaar fi. diiru ba weeru koor gi yépp guddi gu nekk nii rek lañu koy amalee ci ay naafile yu am solo lool mbooleem al juma yi nekk ci biir weeru koor gi le gannaaw julli juma gi des na amal ay conférence yu am solo yoo xam ne ci ay thèmes yu wuute ay boroomi xam-xam yu géeju lool di ko waxtaanee ci teewaayu mbooloo mu takk lool.